maanaam léeg-léeg boo dee mission bi bi caanisatu salaam mën na laa wan sab sëriñ wala sa sab soppe wala koo xam ndax loolu mu gën a jege gaa yi nañu sa salatan alayhi salaam ba mu nekkee ca la ñaan ma ba mu ba mu demee ba nga xam ne alburax mën a mën a tur dem dafa ca rapport à la mën a tur dem nga xamante ne mu nekk ci di deelee bu boroomam ci ay déedéet yu sori yoo xam ne yu ci mtaay la mu mel ne xol ba daa wéet ci ni ko gars yi nettalee su boroom daal dañ koy indi kàddu goo xam ne daa niroog Abubakrin as-Siddiq mu yow ak moom mu daal di laaj boroomam ne ne ko ndax Abubakrin as-Siddiq dafa agsi mu ne ko déet agsi bu bëri nga xam ne ne kon léeg-léeg ñu war la kenn di la wétile moom misaal tey ibnu Taymiya rahimahullah ca madaariju saalikiin ibnu Xayyim nee na donc donc daana ñëw ne ni ko man de bi ma réeree ci àll bi bi ma la wooyee da nga wax ni mu ko dee su mboom daaw jël ay jinne taw ci loolu loola jinne yu yoo xamante ne bu ñu réeree bu ñu wooyee seenu sëriñ ñoo koy wuyu xam ne kon kooku moom day day jàpp ne sëriñoo buuju fekk ne suñu boom daa suuturaal sëriñ ba wut jinne ñu ko fa woon
jërëjëf sëriñ laaj bi ci tege kii day laaj ne dana wax ci xas xasida mu layin sudur ne wala du zina du dugg àjjana maxraaf la jëm muy leer lu doon wax
loolu laaj bu am solo la mi nunul baaxi xadim bu suñu basiru bi ma maga ca nee na si suñu tubaab bi ko bindee bi mu jógee ci tukki bi daa fekk laaxibat bi ay di mu sax bi dikat yi xam nga bu jëkkoon moom moo moo ñoom dañuy sotti rek ku sotti juum kee sotti juum wala sax bu dugal ci ay yëf ku ku ne xam ne ni ko moom Mushara ñi waxee ne ay ay téere nee na nee na fukk xaye mi ngi seen ay ay ay këram doo nga dañ ko jub lool di dugal ci ay yëf ngir bëgg nit ñi ba ko seen monsieur nee na bi si sula dikkee da da koo da koo nasaxal indi mën a wér léegi yow demal ci mu mën a wér lépp loo fekkul kon sëñ bi kon waxu loolu nag xam naa moom daa daa baaxoon lool lu mel ne xilaafa gi defoon ci application wax ne kat mu la yin suñ basiru nee na mu la yin dañ ko folli ku ku ne bind ab leetar ne kat soxna si day fase naa ko ba càgg mu koy boo xam sànni ne ne ko moom sax de mën naa ñëw lu ci sax xanaa li nga xam ne moom la bind di ko yónni waaye lam la lam boo xam sànni moom bu ko tuta dañ koo nasaxal ko ko kon loolu moom noonu nag man loolu wax naa ko ay at ay at yu yàgg sax waaye noonu xam nga noonu daal dañoo am yitte ndax yooyu war nañ ca noppi waaw war nañ ko bind ci journal yi wax ko mu daal jeex sëñ bi kat waxu ko sëñ bi na naka lay waxee ne doomi njaaloo du dama àjjana te alxaan ne wala taziru waaye sëñ bi si waxee bakar kenn du ko doon sëñ Samba rahimullah dégg naa mu la ci wax xam naa sax di ko layal soo foog naa nga mag ndax xawma kii ba xam naa jumbul daa gis mu la yéen jàppale sëñ bi ko wax léegi nag muy layal sëñ bi su fekk ne sëñ bi wax ko noonu noonu ba ñu jàng usulu diin ca tafsiru annasafi al imaamu nasafi innama yaxsha llaaha min ibaad innama yaxsha llaahu min ibaadihi al ulamaa gaa yi xool ko ñu ne xaw ma xiraa ba ñu ne xaw ma Abu Hanifa lañu wax wala Ibnu Hanbal nañ ba jaag si yàlla dañuy àgg lii nañ ko sànni Abu Hanifa wala Ibnu Hanbal mënut a am xiraa ndax moom du ab saxaabi waaye yàq li sànni moom da cee da cee noppalu kon lii moom suñu waxu ko bi bi dalil li ne wala toujours waa Chirou bi si doxalee bi dalil la sëñ sëñ bu nee na da ko folli bi mu andiwaat amu ca yaakaar naa ne xanaa.
jërëjëf Serigne loolu leer laaj bi ci tegee tuuti boobu tuuti tuuti maanaam am na am na lu rëy ma dafa leen ne man kat su su su ma yàlla may mayoon ne ma benn décret képp signé ko ci góor gi décret bi may signé mooy ne ñëpp dem àjjana ba mu des iblis képp sëñ bi lu ab jullit naka lay xatalee yërmande yàlla ji saa bu bu ñu wax xatalee rek ba ne doomi njaalookat du dem àjjana waaw donc yow ma ko waxoon ca ca mbooloom doomi njaaloo ñu xam ko ndefa bu leen ne tëll ba bala fetal ka kar ma doy
jërëjëf sëriñ loolu mu ngi ci woon a ñàkk laaj bi ci tegee kii day laaj ne siru siri mooy lan ci tasawuf daf koy dégg lu bëree bëri
lo- loolu de moom ay mbir la ci ci ci suufanke yi ak sirru malaaka yi mën nañ cee mën nañ cee ci xam dara waaye sirru sirru yi da- dafay sew ba nga ba nga xam ne waa ji ak diggante moom la ak boromam ma mag ñi daa daa nañ ci wax naan Sëñ Tuubaa nee na foo ko suñu moom doon fekkaleeg garaar tam ya malaayka kay yi xëtum naa ko ji jinne yi xamuñu ko jinne yi jinne yi xamuñu maanaam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg daraja yi nga xam ne ne suñu suñu suñu boom takkal na ko ndax léegi ndax am na ay ay diile ay ay xujub diile leer ci yoo xam ne mën naa fat gisu kumu nga xamante te ne loo gën a je- jege su su su borom sirlu sirlu yooyu day wéy sirlu sirlu sirlu sirlu day wéy maanaam lu mu gën a sew nga xam ne sa day dem ba sa diggante borom dong la sëñ Cheikh Mamadou Doudou Sofa ba mu di le- lettre sëñ Massamba Mbacké radiyallahu anhu di ko wax ne ko man koo xam ne dafa góorgóorlu ba muy deyaaleeg boromam salaay salaam doon du ko fekkee ne ne ko tontu ma bu dee bu dee xam nga nga ci dara sëñ sëñ Samba ne ko loolu day génn na xaqiqa ne ko loolu mën naa nekk rek waaye nag loolu kenn du ko am ci lu may bii barakati yi salaatu ala alayhi wa sallam xam nga loolu kon kawe na dem ba nga xam ne su suy dee rek sa sa borom sax salaay salaam li muy tedd du ko fekkee.
jërëjëf sëriñ leer na kii day laaj ne sëriñ bi dafa wax ne mujj na alxuraanul karim doon werdam muy laaj naka la doone woon werdam ndax da cee amoon ay dog wala da daan jàng kaamil bi yëpp
maanaam noonu nag wax dëgg yàlla dañoo xóotul dara dañoo noppalu lool de baat yi rek ci kaw rek lu jóg ñu ñu firee ko noona man mii am naa wér woo xam ne ab aaya képp ab aaya la ab aaya la du ma ne képp képp ci wolof mooy tuutal ko du ma ne képp de ab aaya la ci alxuraan nga xam ne te te te ne da- dama koy wér de an isnin la nag an isnin xaas la la ci am ma de may wér de aaya ba ñu ñu ñu wax ma ab lim sangam waaye léegi kon kon man su ma nee kon te man ak alxuraan mooy sama wér de kon kon de kon la ma dëgg la maanaam maanaam sëñ bi danaa wax ne maaxuus bii du ma ne kenn yem ci kat déedéet sëñ Tuubaa yoroon na ko su junni per junni per yoroon na ko junni per sëñ Mbàkke Jaxate ci kër njaareem nga xam ne daana ko bës amoon na ko waaye su junni per si si baa kon kamil bi bi rek si doon wér da sëñ bi loolu loolu laa suñu yàlla way fan koy yu ci ak dégg ak dégg lool xam naa nag naa moom gëstuwante sama bopp xóotalu ne lu ne daal ni islam si def daa gën a noppale moom par bu ne ci nga firee ko làkk wax loolu moom daa daa yomb lool daa te it nag amu njëriñ
jërëjëf sëriñ leer na nañ kii day laaj ne asayxul kaamil muy sëriñ bu mat sëkk ndax mën naa xam maqaamam taalibe fu mu toll ak bu ko xamee ndax daf ko koy wax wala daf ko koy nëbb bu dee daf ko koy wax lan mooy illa ji bu dee daf koy nëbb lan mooy illa ji
mas naa dégg mas naa dégg ku ñu wax sëñ Fallou Guèye rahimahullah dara mos gi gi la dëkkoon si si marataal gësul naa ko gësul na ma ko ba ne wàcc na liggéey nee na léegi mu war a at Pescara la naa wala woon xaw ma ci Italie waxtaan ci ci mu doon def 91 la yaakaar naa 1991 waxtaan mu mu wax ne kat sëñ Tuubaa boo bokk na ci kéemtaanam yi su bu bu takkalee ab sëriñ ab ab garaat da da koy takkal ci ginnaaw du ko takkal ci dund bi ndax bu jëkkoon gaa yu bari lii leen ta ta- lii leen taxay yàqule wala boog seen se seeg ba ñu doon retiré rek ba muy jeex dañ leen takkaloon seenu garaat ci seen dënn sëñ bi nag takkal ko sëriñ si ci seen ginnaaw nga xam ne donga yi ñooy ñooy gis garaat ba waaye sëñ bi du du gis boobu che ab sëriñ bu ma sëriñ dëgg tigi tigi tigi tigi baat yi nag baat yi nag boo boo ko joxee àqam gis gis boo ko yëmbul wala boo gisee kooka doo ko ko teg cheikhu kaamil koo xam ne ni kaamil dëgg la mu kaamil jàq forosul kooka moom jëmbul boo ko gisoon doo ko teg kooka kooka nag moom si sàmba it daana ko wax ci waxtaan yi naan kooka juróom-ñaar fukki junni maanaam dana ko xool ci genn ko bu ne dana ko xool xoolu taalibe ba ba lu ba lu ca mën na nekk loo xam ne ni neexu ko mu mu mën ko far am na ko am na ku ñuy wax alimaamu mu rifaa yi la ki koo xam ne daa dem ci ab awal yi mu ne ko yow day sawar nga jëm bi nañ ci sa jéeb yi ne sawar nga jëm kooku daal tiit daw ba mu jógee alimaamu rifaa yi mu daal di def nii ci kanam ku njëkk ne ko man de damaa dem ci génn góor yàlla mu ne maa yow kat dañu bañ ci ci sa jéeb yi ne soxla nga jëm mu ne ko xanaa xanaa gisoo bi ngay ñëw man may far booba loola la naa doon far booba loolu moom loolu moom ay sew sew la waaye gone bu am fukki at ak juróom benn wala fukki at ak ñaar bàyyam dencal ko ci ci kontam ubbil compte boo xam ne milliard la daal ko koy xamal ne ko de am nga am nga ci banque ba de milliard nu mu koy def xam nga naa ba ba borom xay sàngam ne ci ci njëriñ ab taawam xanaa da ko bëgg lool taaw ba di wax xayis ba di jëndi oto ka nangam daal di accident si daaw gaaw daal di dem. kooka ku ko nëbbaloon la mu yor ndax kon du gën a wóor xam nga xam nga fi mu toll bañ a beew ñu ñu bare bu ñu xamee seen bopp kat beew waaw am na nag ñoo xam ne moom lu luñ gën a xam gën a yaru waaye loolu loolu nag ñëpp nag amuñu ko sëñ Tuubaa nee woon na la gën a gën ñëpp pour duñ ko am waaw loolu loolu loolu kon moo tax kon moom te amaan na leneen lu am solo léeg-léeg nga gis kuy luñ ci boppam. salaay salaam waa ji gënoon luñ dina ko an sama baay su salaay salaam dañ ñuy lu mu ne ko an sama baay mu ne ko sa baay ma nga sawar xam nga xam nga loolu léeg-léeg nit laaj. laaj boo xam ne buñ ko ko tontu woon du ko neex waaw sa sama baay daanaka ko wax naan doo ngay waaw ñii laaj ndigal mu mu mu ne waaw ndax buñ leen joxoon ndigal ndax danañ ko attan loolu nag moom ay sew sew la xam ne moom misaal tey rek da nga gis koo xamante ne sëñ Mutala dafa am xale boo xam ne daa ñëw xanaa daa fanaan ci boppam ba bët seen nag mu ñëw di nuyu si sëñ Mutala mu romb moom yi ne ko sëñ bi yow ne ne ko bul dem bu boo demee sëñ bi da nga xam ne mu ah déet du ma xam waaye dikk toog daal di daal di nuyoo si sëñ bi day dekk njëkk ne ndox nañ ko jox ndox waaye dañuy bëri sëñ bi ñu loxo kon kon man koy xamal kon ne ko xam naa li nga fanaane bi sëñ Moustapha Diop Yaraax suuf suñu bàyyi la nekkoon ak sëñ Murtala ci ca kaw sëñ Murtala bu Moussa nekk ci sàppe si bu jullee ba ba noppi day geesul jiw dama jàppi jiw dama jàppi jàpp woon mu jékki-jékki baloo la si si si suñ fa jóg ci raax nag ci mujj mu nekkoon ne waaw man de damaa gis la nga daa def saa bu jullee ba noppi ku jàpp la nga ne ko jàpp woo mu ne ko waaw adduna moo soppi ku ma soppi kon yooyu ba ay
jërëjëf sëriñ kii day laaj ne ku def bàkkaar bu mag lu demee ni zina wala xatlu nafs ndax su góorgóorlu mën naa doon wàlliw wala ndax su gënee góorgóorlu it mën naa doon xotbul xaws ñaar yooyu lay laaj
waaw xam nga rek ku def bàkkaar mag moom li mu war a yitte woo du loolu déedéet déedéet ku jàggati dëgg dëgg attee moom kooku warut ñu yitte woo mën a na mën a xej waaw bëgg a xej ji ngay bëgg bëgg mu ci itam kooku kooku moom di yàlla moom lu yaakaar naa cooy laaj xanaa xanaa jëf boobu wala su ko defoon xanaa xamul li wax waaw ku jàggati dëgg dëgg dëgg moom njàqareem tal na leneen lu lu lu may doon ab ab xëj yi ndax léegi ndax la la def jéggi na dayoo mag ñi daal dañ ko wax njëriñ mag ña daal di wax naan ku njaaloo ñu fal sa tur ci liste góorale ma ma de loolu laa gëm waaw njëriñ la ñu xam ku njaaloo ñu fal sa tur ci liste góorale waaye nag man ngaa doon nag ku baax ma ngaa doon doon si seen àndandoo yi yu yu tedd ya waaye nag bu too bokk ca koor yu yu yu mag yi loolu xam nga moom loolu moom ah ginnaaw yow soo bëggee dugg ci koor ba yaa ngi jëkki ak taw ba al inaabatu si sangu ba seet wicc fóot ba seet wicc ñuy takkal la takkaaye da nga soog a dugg ci ci ci kuréel ba boo takkee ripp nag nu ndoo fi duggee
jërëjëf sëriñ bi laaj boobu leer na kii day laaj ne dafa gis ñenn ci kuréel yi woote woo tasawuf ñoo seeni mbooloo dañuy faral di jëfandikoo am fecc dañuy fecc daal muy laaj ndax fecc dafa bokk ci tasawuf wala déet
waaw sëñ Bamba de moom tasawufam ja da dama ne jàngale woon njëriñ li mu amu ci amu ci amu ci moom xam naa xam naa bu dee nag kooku amul suub la mën naa am amul suub la nga xam ne ku mel ne sëñ Mbay Saar mu suub la woon maanaam léegi mu xaddam la woon wax waxee sax moo jiitu ak moo mag Alaaji Mali mu xaddam la woon doon ëpp dikk doon mu suub mel ni ku xamatul dara kooka daana yeggaayu di tëgg di sikkar nangam nangam kooka moom koo koo kooka moom su fenk yi dañ nekk kooka kenn du ko bind dara mu suub nag da nga dégg ñaan daan daan kat si si si fan lu mu mu tëdd ma la la la doon wax bu ñu bu ñu nee daan kat mu ne yëkkat waay yëkkat daan kat mu amu njëriñ waaw lakk wu ni ni ni ni ko war a lakk doxul waaye maj suub mooy ku ku ñu xëcc ku sa borom xëcc jëmee ko ko ci boppam kooka moom dana tal leneen lu lu muy am fecc
jërëjëf kon leer na tasawuf sëriñ bi moom kon am fecc amu ci sëriñ bi kii day laaj ne lan mooy màqaama mi nga xam ne bu ci jaam bi xasee eski dootul dawati wut ci lu baax wala mooy ragal sofaan lu baax moo koy wut si sofaan bi moo koy daw nee na màqaama moom mooy ban màqaama tey ku ci bëgg a dem nooy def
xam nga xam nga loolu sax ma nga ne duma xam tënkiin tënkiin soo dee góorgóorlu mag ñi njëriñ soo toogee ak ñoom ba waxtu julli jot bu ñu ne ah ndax la doy nga nga ne addi xanaa ñu ne allahu akbar ci jumaa ji nga xam nga xam ne ne ne suñu moom dina jox montor montor boo boo xamante ne ci la ñuy xamee ñoom waxtu bi ndax dañ dañ dañoo tàmm julli tàmm julli ba saa su jotee seen jëm xam seen yaram xam ko loolu moom loolu loolu mooy tënkiin soo dee jaamu yàlla di góorgóorlu ba for yow baax ga moo gaman sinon ba rek dinaa ci ci waxoon na ko ne ne Salmaan al Farisi radiyallaahu alayhi salaam sa salaam ko waxoon ne Salmaan minna kon kon kon alayhi salaam ne woon na sa ne Salmaan day su ba su su su bëggoon moo yàlla du ko man ngir dafa sopp yàlla kon ku kon ku sopp yàlla tigi du doo mën a moo yàlla say say cër day bañ loolu nag moom jagleel la lay doon suñ sàmbay daa wax naan fadu tax siis ay yoo tax
jërëjëf sëriñ kii ne la bayit bi la bëgg ko leeral muy xattu tëji bil alifil max fii naylal maqaamaati gulaa bi tey nee na alifil max fii lay away ndaw away ndaw ah loolu moom ah nda ko na jéem a xeeñtu borom rek mboor ma ah ko ko xeeñtu mboor ma nag ñu xamal ay ay yëf ci xam nga daa am loo xam ne maanaam ku ko xam mën naa am du ko wax ndax am na loo xam ne ku ko xam daal koy daal koy bëcc ngel waaw daal koy teg teg ca marché ba loolu moom xam nga xat xuttalii bi alifin max wi nañ leen maqaama joxu yaa maqaama yu ñu kawee ba tey yi bu boole ca dañ ma ko lemal ah loolu boo boobu secret moom kenn du ko laaj xanaa kay da ngay dox ba yàlla jox la ko yaakaar naa ko yaakaar naa ko de
jërëjëf sëriñ bi kii day laaj ne nee na sëriñ bi dafa wax ci yenn ci bayit yi ne am mbindam moo gën a kawe sayxu tarbiya ak sayxu tarxiya mu ne naka la ci nit ki mën a jëriñoo ndax day mooy xasida yi nga xam ne nit ki da koy jëfandikoo am ci isnu wala déet loolu daal la ko ko leer
xam nga xam nga nag moom noonu noonu daanaka xoolal chaine bi xëy na ibnu xëy na chaine moom fi mu ko chaine bi buy jox daal moom ñëpp mokkal nañ ko. xanaa dañ dañ dañ ko diggut is na xaas boo ko amee ci dara sëñ war bay siiseen maa ko déggee ci ci làmmiñam mu mu ne wakun mooy san lanaa min charri bi xasani machari fa min machari anillah sëriñ si yéen say xar si moom ma ma ji di ma usaati sum sum yàlla mu ne mu ne mën naa faj rag gu ne gudul judul rag gi dee ñaari béy doyu mu ne nag sëñ Fallu booba nee na moo fi ne nee na ma ma dem jox ko juróom-ñaar ñaari junni juróom-ñaar téeméer juróom-ñaar ko juróom-ñaar nee na booba gënuma ko mokkal waaye dama xam ne booba booba dañ wàññi de booba mooy si sëñ Tuubaa xam na kon is mi xas la dégg de gënuma ko mokkal bu dee mokkal man mokkal naa waaye is mi xas la ci laa soxla ne ne nag béy bii boo ci amee is mi xas la mën naa faj jàngoro judul jàngoro yi de loolu xanaa kon leer na xanaa
jërëjëf sëriñ bi leer kii nee na daa bëgg nga leeralal ko diggante Moussa ak sunu borom bi ñuy waxante te Moussa ne ko dama laa bëgg a gis ak yi ca xew yëpp nee na daal da koo leeru nga bëgg nga indil ko ci tënk bu gàtt.
loolu la ñuy gis ñu jox naa moom leer na ni mooy kalimullahi Moussa kalimullah yàlla tere na ko wax moom sunu sunu sang bi sallallahu alayhi wa sallam moom it mooy kalimullahi waaw kii kii moom te tu te tund bu sell wax tuuri Sinaa su suñu boom wax ak moom nga xamante ne loolu loolu nag ci ci ay kiiraay yu bari la moo dox ci diggante moom lan la la koy xamal fa la maa te te jëllaay nga jëbal jaanaa dakka nga xam ne ni jaanlu dakka maanaam léegi bi mu bëggee gis borom bi nag borom bi daal doo ma gis nag waaye ah Moussa wax wax wax soo bëggee nag gis ma de kon xoolal ba xam bëggee ba xam borom xam-xam yi nee ñu ginnaaw dafa aj gis ko ci lu mumkin ndax doj wi mumkin la mën naa am mënoon naa am bu sa doom tëjjilee ci moom mu ne fa kon ginnaaw loolu kon kon ñu ne gis yàlla kon kon mën a ne am na ñu ko doon am na ñuy déet ginnaaw li mu ko ajoon kat maanaam léegi ba mu ca ba mu ca fenkatee dafa naaw kon mooy kon mënta am kon ko ko ko daal Seydina Moussa moom boo ko demee ci alxuraan rek xisaam bi da koo baamu ay yoon i yoon. koo fonk moom ci ci ci ci xaj yi la. sëñ Thierno Kelle Kelle wax wax na am solo ne ne ne sëñ bi nee na Seydina Moussa de day mat ne kon ma yeddu ko daal di ne daal di daal di ne yéen woon dóoru ca ahlu xal suum su ko dóoroon ca dënnu Firawna ba mbooloo gëm kon kon dégg nga kon waaye nag waaye nag ku la jëkk a reer wala ko reer
jërëjëf sëriñ bi xam leerul nañ kii day laaj ba tey ci Moussa digganteem ak Xula nee na bi ko suñu borom diggalee pour mu ànd ak moom Xula dana ko innaka lan tastati maay sabra te Moussa bokk ci ulil asmi mina rasul te sunu borom taggaleen fasbir kama sabara ulil asmi mina rasul moom daal ñaari sabru yooyu ko jaax
xam nga xis na Moussa Xudar moom daa mel ne li muy jàngal rek mooy xaqiqa ak sharia Moussa nabiyul mursal la maanaam moom moom sharia lay wax moom li ci ëllëgoo yi arwaxee rek ci lay wax si tuwaay ne woon na xaqiqa nag mooy li wàcc ci téere yi ak la ci wàccu kon moom léegi xaqiqa ak na war a moo gën a yaatu li wàcc ci téere yi Moussa nag moom téere yi moom sax ay alooy bi la leen ko andiloon ne ko waxal loola mu di ko jàng di ko wax mbooloo xodar dana nan nag wàlla nahu mi rek naa ilma al ilmu la dund yi moom xam nga amut kon ab yoon mu mu gaay moo tax xodar kon danaa ko rek yow de Moussa soo bëggee atte woo ci sa alluwa yooyu ci li may def ak li may wax kon doo mën a muñ loolu moom moom moom daal di na leer su kilifa yi mag yi sang su mag sa lañ lañ daa def soo ko artee ci téere yi yi nga xam loola sëñ ma dem nañu def na def na lu am solo da daay ñëw ci kër Serigne Fall Serigne Fall ne ko doomi soxna loo xam ci jigéen ñu bari ñu ci sama wanam bi mu ne ko ah Fall man de ba may jàng sama ëllëgoo dafa agutu mu ne mu ne wax naa ko ma xam nga ko kooku kooku yow la yow na léegi li li séer yi wax man ah wax dëgg yàlla day gisuma ci léegi wax mu jeex takk loolu ko kon Xodar ak Moussa loolu la ñuy jàngal ci waaye day mel ne bind bi bari daal mu ko gën ñu bari xamaguñ ne yàlla bu buram gi yaatu na ci burg bi maa gis suñ ci waaye di wax yàlla am na ñoo xam ne du leen rey daal di nekk lu lu mel ne arsh ak kursi ak xuraan yi waaw nga xam ne te ne loolu nga xam ne kon bu njëkkoon bu ñu la kat am na ñu dégg déet loolu gëm ci nekk waaw bu nekk motu sax day dee ñu ne waaw aras nag moom xuraan yi bi daal xol doon nag moo ne alxuraan la de waaye nit ñi dañu mel daal bu dee jàng du ñu xool rawatina ñun suuf yi moom suñu Afrique yi moom daanaka nañ amul jotu seen seen dara ñàkk gi daal métti jë jënguñu de moom jënguñu jënguñu de jënguñu booy boo dee xool suñu ñu tuddee ay borom xam-xam yàlla nag day xam ne jënguñu de daanaka daanaka moom xanaa waaye nag wolof nee nag maanaam maanaam fu ne rek wala fu ne la ko ñuul moo fa di ñàkk waaw fii li li fi ñuul moo ñoom rek ñu ay borom xam-xam waaye yàlla jënguñu de sëñ ba sëñ ba ca kawsar la daal di bàyyi asayid naati xaw ma naati ñeent fukki at la jàng ci dara ñi ñi ñi ñeent fukki at xaw saa yi nii am na fa ñeent fukki at 1957 la judd jàng na ñeent fukki at sëñ Mansour Faye yàgg bu ma juumul ak moom nee na ci ci la ci la dem ca El Hadj Mansour Faye nee na ci la dem ca sëñ Babacar Sy sëñ boobu judd ci moom jàng bi ñeenti jeex jeexal ci réew ah sëñ bi yitte yitte loolu amuñu sëñ bi ay amuñu daal jaww maanaam Sénégal moom amuñu jaww xam-xam déedéet xam li may jàng dama daal toog ba càgg damay laaj sa bopp naan waaw man su ma su ma américain laajoon ne ma professeur man américain laajoon ne ma waaye yow mos naa yow looy jàng ni soo demee lu muy jëriñ ma ne ko ma ne ma ne ko waaw damay jàng ndax nit ñu ne war naa am koo xamante ne moo dégg question yi te moom gën a am am ku dégg question yi donte ne dana néew donte ne nangam ma ma bokk ci ci ñooñu rek maanaam it da daalaay wax ne Afrique bi ku ku fi ku fi juddoo su moom daa dimbale daa bëgg nga da gën a gaaw a amutur Afrique moom si biir dañ ne kon yow boo fi juddoo xéwal la tey xéwal la loo def amutul loo loo def rek waaw yaakaar naa loolu moom kon moom Afrique boobu daal waaw.
jërëjëf sëriñ bi leer na kii day laaj chrétien boo xamante ni moom bokkalewul waaye ma ngay jaamu yàlla ca diineem nam ko ware lay laaj arteem ndax nee na aaya bi ba muy jeexal dana falaa xawfu alayhim wala hum yaxsunun te tudd na leen loolu lay laaj ba xam naa xam naa ba bari yi bari yi mu wax daa mel ni di bari chrétien la wax maanaam alisina xaalu ina nasara maanaam maanaam ñii ñu tuddee tey ay nasaraan maanaam ay chrétien ñoom du ñu chrétien de boo ne chrétien lañ mooy da nga ne ñoom huma laa millati sayyidina Isa alayhi salaam boo ne nag ay nasara lañ mooy allazina iddahu annahum atbaau sayyidina Isa alayhi salaam loolu nag ay sew sew la vraiment ñun dañ dañ dañ wax naan fulaan nasaraan yiw fulaan nasaraan yi lañ wax ndax moom ngeen dañuy benn woo min abbaas sayyidina Isa alayhi salaam waaye boo ne masiix yi nag mooy da ngaa iqraar ne saxal ne moom kat dogab sayyidina Isa la ala ala milati yi te te déedéet léegi nag ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci diine jurul islam jëkk islam ba islam ñëw waaye ñoom ñoom ñoom diine diine ji ñoom ña nga si ci ñoom joxal mbay kay gëm nañ ko mbay kay mbay kay jaaloo wu ñu rek nii rek bokkaay maanaam maanaam maanaam juyewuñu ak diine ja tey weddi wuñu kii ku mel ne Mahatma Gandhi lii naa ci ay musa garde moo wax ne man day jàng naa islam waaye da- damaa gis ne daal wuti wut ak brahma ak al brahma ak yéen léegi mu moo tax mu ci ci man dikk ma ci kon kon moom nangu naa islam waaye dafa jàpp ne li muy woote ak li diine woote benn la kooka koo- koo- kooka moom ay boobu di di di- di- di wax mën naa am ñooñu ñu lay wax ndax abadul kawaakib ci la bokk ñi nga xam ne da- dañuy jaamu ay biddiw ñooñu bu ñu bokkaaliwul yàlla nangu yàlla ñooñu laa ko faral di ko amee sama.
jërëjëf Serigne Darou Naaj kon bu ko defee foofu la question yi yemoon ñu bàyyi
da waroon tànk toll ci góor yàlla yu njëkk yi rek. li mu def sëñ bi di ko yittakal garab. maa dégg nga wax ba ne dañ daan defal ci dën. nit ki mën naa mën ab mën naa rocc ba ab segam jeex ma lay laaj ndax kon day jeex maanaam sëñ bi gars yi tey maanaam gars yi dañuy déterré sëñ bi jeex maanaam day Am na- am na- dañ koy retiré ba mu jeex.
Cheikh Moussa waxoon na rakkam sàngam Cheikh Moussa mu tey dama waxoon na rakkam sàngam ne ko diw xar baax de xam nga lu mu doona mooy ku denc million ci ci banque banque la wax banque mooy banque ku denc million ci banque ñu bind ne diw de dénkaan na fi million di ko laaj ba mu jeex ñu bind ne diw de dénkaan na fi woon na fi million waaye la laaj na ko ba mu jeex daal di ko nag su su su pencee lu ca waaye am da nga ko xeeb kon loolu loolu kon moom ma nga doon nga retiré moom am na kay am na kay am na loolu sax tey sax sëñ bi ñu doon li ñuy wax maanaam léegi ñu ko waxee dogu ak a yomb di amal jafe-jafe rek ab seen maxar boo ma sa jéggi tëri bi rek nga ne yàlla ma def am su soxla si yàlla moom seen maxar dama dama digaloon tëri daal mu laa bëgg nga fay ma soxla si sa tàgg ba waaw benn waaye ñëw na ñëw na Égypte daal ne Koweït Moussa Koweït jafe lool waaye daal ne doog naa bu dee si waaye dama ko liggéeyal nangu na ci dara naa am visa. donc ah ñëw sëñ bi li wax la di ma ne ko ma ne ko kon yow wax wax nga sa sa sa sa compte mu dem daal di déposé ñu ñu may ko mu dem am fa ñetti weer ñëw ñëwul waaw kon moom fàtte fàtte na sax bi ñu doog sax doog na bu tey su su su ma demee mën a ñor mu dem ci sero di ci sero kon kon dëgg moom ci ci wax na ko loolu loolu moom ñoom la lool waaw
jërëjëf Serigne xam naa kon dañ lay jox nga yëkkati sa kàddu bu mujj rek ah bisimilah.
leen leen laaj bu ndaw rek.
waaw.
almaarifatu billaahi. li ñu woowee almaarifatu billaahi.
wax kay
lu ñuy jàngal nit ki la wala dañ koy dox jaamu yàlla ba egg ca rek.
maanaam concept la mu fu mu fuum bi yàggul man bi bi may dem keer quatre-vingt-cinq boobu boobu la ëmb murid gi nag daa am lu ruuxi xaswu loolu suñ su su su suñ mbokk kawlax yi la ba doo ngay bàyyi si ñu ñooy wax loolu maarifa loolu aw tur la wu ñu wax ñoom ab baat léegi nag dox na ba ba ci Tuubaa ñu naan maarifa maarifa nu nu nu liñ xam ci Tuubaa mooy al maarifatu billah ci tool yi maarifa baat boobu baat bi la ñuy jël talsam la def ko muy ab yim ñuy dal ko ci laa ilaaha illallaah nangam ci ay weer jox la ko nga def si tam ma ma ne waaw kay talsam bi bi na jox maarifa xam waaw lay xam di di di di di xam nga jeex na maanaam da ngaa dugg ci batul xam fan la la jëme kay fan fan lañ ko lay oto bi oto oto xam dong maanaam loolu lasraar la waaye nag witt gi tubaa nag tubaa nag daa witt mooy ah bu wittee nag fa te witt mënut a am ba tax bàyyi gis jàmbaar la i doo nga am i jàmbaar de waaw mari fa moom koo gis mu nga woote rek bàyyi gis liggéey jàmbaar la ñoom ah ña ngay woote noonu nag woote yàlla ginnaaw jox ñu kenn dara ñi ñi dañoo mar ah da da- ah faaw ñu naan nag moom loolu moom kon am na mari fa moom ñun xamuñu ko moom moom moom Baye Niass la ñoom ñoo ko xam seen yëf la xam naa loolu kon ñoom seen yëf la daal ba baax naa ñoom baax naa ñoom li sam bi wax naan baax naa man waaw baax baax naa ñoom sant naa loolu
jërëjëf kon baax na ak ñoom Serigne bi bu fekkee ne question yi amul keneen kuy laaj question ñu jox sëriñ bi mu yëkkati ay kàddu yu mujj rek eh, ñaanal mbooloo bi ñu dal ba ndogu ban fi continuer liggéey bi incha allah.
xam naa dafa mel ne tu tur yàlla yi si duwaa daa joxe te te- te mel ne ne jëllul moo waral maa ngi foofu boobu jubbu waa ñu kër jiwu si kër ba màggat te du xam dara du gis dara du yëg dara loolu moom moo am ci suñu kër yi moom waaw kër gi maanaam maanaam ku fi kër bi yow moom ba wàcc moom soo ñibbee fa nga jëm jàpp gis boo demee Kaolack moom te ñi ñi wuyoo bàyyi ñëpp boo demee ñu doon jox la dara euh, soo ñibbee sa kër wuuteeg ñoom daal di daal di nag ñu ne kii di moom am na fu mu jógee am na fu mu nekkoon loolu moom loolu moom wax dëgg yàlla tur yàlla moom ku koy werde da nga da nga daal soppikoo di xam dara di nangam nangam am loo yëg mu neex ci yow Euh, waaye nag noonu moom dara noonu moom dëgg yàlla roota roota roota moom am na mu am mbokk am am mbokk ñu ma dem ci am tuddam ñu waxtaan ci lu mel nii rek ak mu ne ma kii de sama maam sëñ ju tàngam de moo ko doon tërbiye pare woon ah pare di daal di jëkkal ab logaay sëñ bi de kon ah mu daal ne waaw ma ne sëñ ba waaye dama mujj ne ne ko indi ko ab téere ñu ne ma téere bi si sëñ bi ko bind wax na turam turam fàtte naa ko mu ne ne ne sëñ ne sëñ bi kat daa bëgg nga xoolal ma ma ma ma fi dara lu lu lu may wér sëñ ba di xool ne ko lii daa gudd lii daa gudd lii daa gudd ba ba téere ba jeex te koo koo kooka de mooy sëñ bi kenn mu gudd de kenn kenn mu gudd de man kay man kay ba mu noppi man damaa daal di ubbi ko man waaw man waaw dafa téere ba joxe ni mu fa am jàppal lii de.
non ji man man kay ba suñ bi noppee man dama la di wut man ndax man gàtt naa gàtt naa daa fi kon ma gàtt ma gën a gàtt loolu nag loolu nag moo indi mbir maa ngi boobu de waaw dëgg yàlla maanaam noonu bidd moo am bidd bidd moo am waaw bidd moo am sëñ bi daal war a baal sëñ bi war a xam yow doo nga góor a xam dara góor a xam dara waaw loolu loolu loolu nag moom lañ jàngal ci génération yu mujj yi waaw loolu jàngal de jàngal mooy yow war a xam te yow incha allah doo doon kenn sëñ bi daal lay doon moom mooy xam moo moo mooy doon loolu loolu loolu loolu jàngal de fépp nag ci kër yi murid gi foo dem loolu loolu ñu jàngal moo tax witt am waaw moo tax bàyyi bu duggee ci noonu faaw mu am nag ci noonu ay candidat de ah ah wax dëgg yàlla de bàyyi moom jàmbaar la bàyyi moom xam naa ne moom ko am solo la bàyyi ko am solo la. ndax maanaam yitte ji waaye ñes maasum seen seen seen kay defar ma la waaye lu ci de nee naq comme ci def na def na dara am na dara américain ñu ñu ñu ne fii américain Touba ci kër ga day def teesu doctorat bi ñu bi ñu waxtaan bi ñu waxtaan ba ma jox ko si Maxuus léegi jox ko Maxuus ñu ñu ñu koy wér waaye ci waaye ci tuuti gëm mu ne ma ah man de jotaay bii man wër naa ku nekk waaye ci waaye jëli wu ma dara. sëñ bi sëñ bi loolu yow it sëñ bi yow it de maanaam ma joxoo ñaam joxoo nangam loolu dara kii moom kii moom dafa mu laaj ma Ablaye waaw ndax amul ay représentant yi xilaafa gi ca Maroc ma ne ko ah loolu de man xamul dara waaw su amoon représent- représentant benn waay doon benn benn waay koo xam ne boo liggéey di di ko laaj sëñ bi waa lu lu la tër bi yaay góor góor góor góor ña xamuta dara ndax moom kenn kenn kenn tër bi yëngu mangus bi képp soo ko laajee yëngu ko yëngu dara moom karaa rek day doon benn benn waay rek maanaam sëñ bi de moom moo moo fi nekk mu jeex sëñ bi doon ciw de witti gi moom witti gi moom wax dëgg yàlla sëñ bi te man tii naa lool witti gi nii buñ ci jógut mu rek day far de sëñ tubaab dama sëñ bi ci aw sa waru maanaam ay boroomi ay boroomi mësëb ci fekk amoon nañ njëkk Malick far nañ dañoo am lu ci donga si tubaab rek amul amul donga maanaam maanaam si tubaab bu bu ñu yeexee day mujj doon aw lépp de aw lépp ci téere la ci ci téere ñu naan Cheikh Amadou Khadim ci téere waaye duutu amati ci ci biti folklore bii di dox folklore bii di dox nii di wéy day mujj far moom nit ñi bu ñu mën leen ko tool bi dañuy mujj toqi nga xam ne ne moom bu dee xam ne ne moom wax dëgg yàlla ak nit ku amum xel du dugg ci mën ci moom mooy kii xoolal sëñ bi wax wax suñu bàkki tuuti rek tuuti waaw bis- xoolal am na bayit boo xam ne ñu ne ñu ngi koy wax aw bayit jàng ñu tuddee ba xam di di di ko firi naan sëñ sëñ Tuubaa dane bu mel naka idi lay ni mu jëri mi saggal mu ne gën a an taalumi sëñ bi nee ñoom ñoom lañ ñoo wax de sëñ bi nee bu ko defee fexe seytaane seytaane mooy gàllankoor moo leen ñu bëri jàng ma ne leen laa ilaaha illallaah loolu bokkul sëñ bi ak tuyaan bu bëggee indi doomam suba ne suba di dama dama yóbbu sa sorum Tuubaa mu jublu ji ñu ah sëñ bi xanaa xanaa xanaa diggoo li si si sëñ bi wax sëñ bi noonu noonu sëñ bi noonu ñuy defal sëñ bi de sëñ Tuubaa bi muy wax murit mu mooy ku wanteeru jëm ci yàlla kooka seytaane dafa dafa koy dagal lu looy wuti yàlla bu àggee ko yéen nangam xam leen ko jël ko bu bu bu bu jàng jàng bi su coono jël ko soo àggee da nga xam lépp seytaane li ko dëgg la de su waaj a àggee waaye waaj a gënul àgg. waaw moom ndax dëkk ba xam ko gitt bi ka- carte bi nga xam ne moo ko doon ñu séeréer bi ñu ko doon ñëpp ci dëkk ba mu ne ko sànni ko soo àggee da nga xam da nga xam ni ko waaw boo àggee dawul àgg rek si si doog kooku lay wax waxut waxut noonu de foo gis si doog bind murid ci ci waxuñu xanaa ca soxna Penda Diop muy dëj yi mu si muy dëj woo kese ak seen fal ak muy du du ko saaja seen fal ñaar yooyu képp laa gisal kon si doog di bindee murid jubluñ si noonu waaye moom wax murid mooy volontaire ku ku nangu yàlla waaye sëñ bi xoo xoo xoo sëñ bi prix mu prix mu bon moom rek sëñ bi ah c'est que murid yi daal ñoom seytaane day day gàllankoor moo tax nangam daw waaye ndaw sëñ bi daw loo sëñ bi ah aywa sëñ bi moom moom fii ñëw na de sëñ bi moo ko xoolal ca taxalilu asaa bi rek taxalilu asaa bi ñoom dañu ne xalil baram ma ne waaw moom xalil moom ban ban ban làkk la de wolof du arab léegi loolu luy wax kii diglu moom loolu luy xam digale digale digale mooy lii digale te xali nga ne xali bari parce que ñun nga nga nga nga xam ne yooyu sax daa mën a xuraat fi ñu toll demal ca mooy Xudus waxoon nañu nañ ma ko ci da- daara yi naa ma ngir ma ngir ma firi ko déet mooy Xudus ilmu kalaam la du du du tawhid de du tawhid tawhid ñu ko jëlee ci alxuraan mooy Xudus lu ñuy werantee la yaag sa mbokkum nasraani yi wala yahudi yi wala majuusi yi waaye du tawhid de tawhid ñu koy jël ci alxuraan li ilmu kalam am na loo ko loo xam ne te bi ku ne ne woon na kat lé- ne woon na kat léegi xaar mu mënut a dund ñaari wax booba bu nga xamante dañ nekkal léegi suñu bopp du nekkal wax du nekkal nangam nangam yi image du du ko nekkal léegi am na am na léegi film léegi film léegi lépp lépp koy dund sëñ bi loolu naaw na mbir boobay bi ko mën ñoo ko ba seet science nangu na ko demal ca taarif taariful alam ilaahi iktisaabu tàmbali li maalum xëri sabi xabaar bu yun maanaam keer bay gars yi ba ñu jub di jub nañ de inkisama inkisaaf mooy wuññiku ko kon ko kon kay dafa nëbb woon da dañoo jum sëñ bi te loolu yàlla xam-xamam bi mooy amal yàlla bu nekkat jàngoro ji daa ñuul automatiquement day ñuul nit nag moom day xool jàngoro ji ba xam lu mu doon moom mu soog mu soog koo tudd bokkuñu waaw sëñ sëñ bi lu lu bëri la sant naa ko.
maanaam li may li may laaj mooy bu fekkee ni waaw jàpp na sax